pour ñu xam ne que ni bëgg nañu jàmm am mooy ni le premier juin loo jàpp ñëw ñu acquitté Sonko non euh, man duma ma orienté jugement wu euh, juge bi ci lu mu war a def mais xam lu ma gëm man ah. hmm. mooy li am xam nga ma war a orienté juge bi ak hmm. verdict bi hmm. li am keroog ci biir procès bi maanaam nit ci biti amul pour orienter juge mais li amoon keroog ci biir procès bi te nit ñi suivre ko en direct même si que essayé nañ maanaam nëbb yenn yi xam nañ ne que Ousmane Sonko lu ñu koy toppee viol loolu amul juge bi xam na ko procureur xam na ko ña ko sax ñoom maanaam xëcc ñu sax waxu viol fin bi finalement affaire u séq lañ doon wax te viol lañ cest à amul woon dara lu doon prouver ca jour ba luy étayer ñoom li ñu yàggoon wax que ni viol moo am loolu Sénégal yëpp xam nañ ne viol amul mais attends ki la digg vidéo dig la audio dig la photo bés ba mu jot indiwu ko kooku amul preuve viol làmmiñ du ko prouver viol xam lu koy prouver lu si njëkk mooy maanaam rapport médical te rapport médical bi am na gars yi jëlli ko dem force bu ci mujj ñu dem ba enquêteur bi nga xam moo yoroon dossier bi def les premiers maanaam ñu teggi ko si ba mu moom mu ñëw témoigner carrément ne maanaam dañ koo modifier hmm. xam nga loolu yëpp jeexal na keneen ki ku jink ne la maanaam dama see jële ëmb mu taxaw ne ay waxuma waxu waxumoon dëgg ci foofu foofu la viol bi foofu foofu la procès bi waroon yem ba ndaw si ne fii dama fee waxul dëgg. Hmm. foofu la wax ji waroon jeexee. mais nag dañ ko bëgg forcer moo tax ma ne la Macky Sall dafa yóbbu procès bi maanaam à un niveau politique Ousmane Sonko yóbbu ko tam à un combat politique. d' accord am na ñu jàpp ci li nga wax ni ci procès bi ne lii firndeel loolu mooy le fait que procureur ci même euh, euh, réquisitoire am dafa wax ni. su fekkee ni la question de du viol emporté wul sa conviction xëy na nga dugal ko ci li nga xamante ne moo aju ci corruption de la jeunesse euh, même maître El Hadji bu mu génnee nee na comprendre wul taxawaay bu bàyyee ko ci procureur xawma lan la ñuy waajal euh, loolu ba tey day day fekk si ñu jàpp ni en réalité lii am na doute que ni xëy na foofu la fondé argumentaire am boobu wala. Euh, non corruption de la jeunesse mooy lan loolu amul fenn c'est-à-dire c'est de mots xam am si xam am ci ci ci code pénal mm. détournement de mineur moo te ndaw si du mineur mais corruption de la jeunesse mooy lan lan mooy jeunesse lan mooy signifier ne mooy jeunesse nit mën nga nekk majeur nekk en même temps jeune est-ce am na dëkk yoo xamante dëkk bu nekk nu ñuy niveler la jeunesse am na ñoo xam ne 42 ans la jeunesse yem fii dañu ne 45 ans la jeunesse yem am ñu ne 35 ans mais lan mooy jeunesse loolu amul sens ça loolu ay jeu de mots la li am lenn kese ci ko pénal mooy maanaam de mineur sur ce cas-ci amul détournement de nee nañu ndaw si am na ñaari carte d'identité ñaari carte d'identité yëpp yàlla def na maanaam majeur la ci kon léegi jeex na léegi nag am na benn guerre médiatique bu ci am. Hmm. maanaam ñiy faral lii di bind ñiy faral ñee di wax dëgg léegi nag loolu kese la ku nekk sa appréciation mais li am ba am mooy corruption de jeunesse loolu c'est de termes yoo xam ne c'est des termes inexistants amul. man ba ma ko gisee dama ayre daf ma jàpp sax xam nga loolu jeu de mots la corruption de jeunesse loolu mooy lan luy corruption de jeunesse. am na ay spécialistes yu si xam ah yu ñu leeral ci wàllu ne lu existe la ah, ci code pénal bi. ah, ah xam mooy de mineur laa xam. Hmm. te soo xoolee li ma la wax mooy loolu maanaam corruption mooy détournement bu ñu changé. Hmm. jeunesse mooy mineur. kese c'est pas compliqué. dans la mais dëkk boo gis am na atte boo xam dañu ne lii mineur yi la ak majeur yi la. Hmm. mineur mooy koo xam ne maanaam day toll foo xam ne xel bi neex na neex na nax. yaa ngi may dégg. Hmm. léegi suñu demee bañ jugé ne majeur nga maanaam mooy xam nga àdduna Sénégal fii jigéen ñi à part à partir de combien d' âge la ñuy commencé noom mu tudd am jëkkër pour sëy hmm. am na ñoo xam ne 12 ans am ñoo xam ne 13 ans. d' accord Sonko jëm si ci capital bi di Ndakaaru boole ko waa Yewwi ñu ngi annoncé euh, ñoom it euh, manifestation de même que F24 euh, ci ban xeetu cocktail la ñu jëm ci semaine bii wala yi ñëw boole kook la ñu annoncé jëm ci. Euh, dialogue national. bu bon man gisuma ne cocktail am na ci xamul tax c'est que dañu am régime yoo xam dañoo tàmmal tere manifestation ba nga xam ne léegi su manifestation waree am ñii dañ ciy tiit alors manifestation droit la ci ku nekk. wax dëgg yàlla ah déjà même loi bi koy permettre sax waxuñ la sax maanaam demande d'autorisation et tout jusque da nga koy déclarer maanaam c'est à titre déclaratif. Hmm. maanaam da ngay yëgle ne que am nañ daje boo xam dañ fi a daje et tout. maintenant dañoo dem ci benn euh, état d'esprit xam ne ak état boo xam ne dañu gëmloo que ni ñun heure bi nii lépp looy def te maanaam nguur bi àndu ci dëkk bi mën naa yëngu. donc voilà manifestation yi soxlawul autorisation encadrement kese la soxla mais du autorisation du dara. oui yeew yi tamit annoncé nañu da nga ca dem. <laughs> non man manifestation yeewu concerné wu parce que bokkuma yeewi F24 ça me concerne mais pas yeewi. lu tax nga bëgg a def. non F24 ak yee non ak yeewi du benn F24 plateforme revendicative la maanaam ay kuréel la boo xamante ne mouvement yeeg parti yeeg yenn affaire dañ fee bokk maanaam pour ànd xeex. charte boo xam bind nañ ko pare. yeewi askan bi coalition politique la maanaam plateforme la fii fii coalition politique la. léegi ñoom ñoom loolu la concerné am naa fa ay xarit nag am naa fa ay kilifa mais loolu c'est en yeewi man f su wootee man mën naa dem mais yeewi su wootee man loolu ça ma me concerne pas. même bu fekkee dafa wootee jëm ci contexte bi ñuy dund nii ne président Macky du dem euh, du ñu nangu Ousmane Sonko ñu koy ñu koy néewal doole wala bu ko génn ci présidentielle bi comme ni ñu ko yàgg waxee loolu convaincre la pour nga dem teew. ci biir yeewi mobilisation oui. ci biir yeewi du ñëpp ko gëm de. ah yow da bokk ci ñu jàpp ni xëy na am na ñoo xamante ne situation bi Ousmane Sonko di dund jamono ji da leen arrangé. ñu bëri ñu ngi xaar Ousmane Sonko Macky Sall écarté pour mën a pour yaakaar tekki ci politique mais nekkul lu ñu foog mooy am. ah oui li nga wax nii lan moo koy firndeel. non lu koy firndeel kese mooy maanaam ñi nga xam ne ñu ngi si biir yeew yi te d'accord dem dem dialogue rek <laughs> loolu kese leer na parce que dialogue bi di am nii lan dialogue bi kañ la ram le 30. oui verdict bi kañ la. le lendemain. non le premier. oui mooy le lendemain. non non le surlendemain maanaam. surlendemain 48 heures d'affilée. léegi pourquoi pourquoi date boobu noonu. Euh, pourquoi yow. parce que maanaam Macky lu mu bëgg mooy dafa bëgg activer dialogue bi. dajeek ñu mu war a dialogeel Idrissa Khalifa ak ñooñu kaf ak ñoom réew ak ñoom photo yu lëmbee album yi wër ci dëkk bi yëpp at ci àdduna bi ba maanaam Sénégal ak ñu dul sénégalais jàpp ne dëkk bi instant yi am na jàmm Macky Sall woote na opposition bi après gannaaw ëllëg sa mu jéem a xool nu mu faagagalee Ousmane Sonko mais li ci gën a grave mooy day ut complice yi mu defal loolu complice mooy maanaam ñi nangu dem dialogue ci opposition bi. ah oui. loolu kese c'est comme li ma la wax. mais xam naa ne tant que pour faire Ousmane Sonko moom xalaatul si dellu dellu ginnaaw. xalaatu ci dellu ginnaaw. xalaatu ci dellu ginnaaw et c'est ça qui est ndeysaan loolu moom moo moo moo moo ci mbir en fait parce que pour man waroon na mën a am taxawaay boo xam ne dina mën a euh, sauver la face du Sénégal et sa face à lui-même parce que aussi Macky Sall su dul dara war na mën a yor Sénégal ci deux mandats ba dem dëkk bi nekk ci jàmm parce que même avec Wade metti woon na bañ koy jël ci waat ji ko ko jox mais quand même yàlla su def na ci sutura mais fu ñu jëm nii ak nu mu ko bëgg defee nii mënul nekk parce que il faut ñu respecter Ousmane Sonko. Hmm. il faut ñu respecter sénégal yi ànd ak Ousmane Sonko mais surtout il faut ñu respecter maanaam cette majorité écrasante bi gëm Ousmane Sonko c'est important li ma la wax nii mënuñu nekk ci dëkk boo xamante ne da ngay woote dialogue ñu ngay woote dialogue ñëpp c'est des gens minoritaires dans ce pays nga bëgg jël ki xam ne moo gën a populaire ci bi. nga bëgg ko teg de côté bi nii Macky Sall ñu mu yaakaar dialogueel nii ci opposition bi Ousmane Sonko moo leen maintenir en vie politique su doon Ousmane Sonko dee nañ bu yàgg que ça soit Khalifa ou autre dañu wax ne dëgg te yàlla tax rek. Hmm. mënoo woote dialogue politique jël la minorité di dialogue ak moom mais nag ça sa comprend parce que système bi moo mës a tëddee noonu. système bi. Mhm. minorité la mës a gérer affaire yi après maanaam pour lor majorité bi mais sauf que entre temps Sénégal dafa changé léegi. Mhm. nit ñi dañoo yeewu ndaw yi xam nañ léegi seen droit ci dëkk bi te dañ koo bëgg jël te incha nañ ko jël wax ji nag day bëri. malheureusement dinañ am état boo xam ne dafa nar yóbbu maanaam Sénégal ci yenn tension yoo xam ne mënoon na ñàkk mais li am ba am mooy Macky Sall lu mu bëgg faagaagal Ousmane Sonko nekkul Ousmane Sonko lay faagaagal. mais doole bi ne ci ginnaaw Ousmane Sonko te doole bu ne ci ginnaaw Ousmane Sonko euh, mënu ci dara. oui mais soo waxee ni par exemple président dafa bëgg a dialoguer ñoom